gi gars yi mayu ñu ko jàmm ñoo ngi koy bund xataal di ko traqué di ko topp suba ngoon guddeeg bëccëg moom docteur Alfousseynou Gaye nee na ginnaaw bi mu defee certificat médical bi Mamour Diallo ak Gabi Sow dañu ko doon teg pression di ko ngir nag di ko laajte lan moo nekk ci biir certificat médical bi yërekaay gi di ko di nee na nag mi li nga xam ne moo ci doy waar maanaam kuréel gi nga xam ne moo ëmb médecins yu Sénégal di ordre des médecins ba léegi ñoom jamono ji mbir mi yéyu ñu si yàbbi dañoo noppi te nag loolee wëru leen ba tey ci biir journal bi moom docteur Alfousseynou Gaye nee na jamono ji dafa daal tiita waaye tamit sonn na lool moom docteur Alfousseyni Gaye nee na sonn na ci mbir mi ba pare nag daat nay tiit loola moo tax nag mu jël askanu Sénégal témoin yéene kaay gi di Vox Populi nee na audio yi nga xam ne moom ngeen doon dégg MC Niass di ko wax ne séq na ko ak Adji Sarr audio la yoo xam ne maanaam ma ngi ci internet bi waaye nag doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maara détaillé moom Adji Sarr mu ciy wax ne Mamour Diallo moo tëgg li nga xam ne mooy complot bi te ci biir audio yi moom soxna sii di Adji Sarr na ci Ousmane Sonko ba mu set wecc yéene kaay gi di bàyyi mbir moomee wax ci rapport Cour des comptes waaye nag li nga xam ne moom la jamono ji askan wi sàkko maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp na ñoo andi ak luubale ci alalu askan wi nañu fay wala ñu jël leen mbogo mbogo leen yóbbu leen ca kasuba yéen kaay gi de la quotidien nee na rapport cour des comptes bi jamono ji nag Macky Sall gars yi ñoo ngi ko teg pression boo xam ne pression bu tar la Macky Sall ma ngi ci pression rapport cour des comptes bi yéen kaay gi di wal fajire ci xëta mu njëkk nee na Macky do au mur maanaam Macky jamono ji dañu ko daal di sës ci mur bi maanaam mënut a ñàkk yëkkati nag loxoma maanaam ci dossier yi bu ko defee ñu jël leen yóbbu leen fa mbaxana doone benn Macky Sall munta ñàkk a teggi loxoom ak journal bi nee na Macky waxoon na fi ne moo jël concam teg ko ci ay dossier waaye nag dossiers yi Macky Sall dina teggi concule yéen i kaay gi di direct news xëy di ñu xibaar naan ñu rapport Cour des comptes bi nga xam ne génn na ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon na Covid 19 bi maanaam noppi gu rëy gi nga xam ne moom la ci gouvernement bi noppi loolee moo doy wara jamono ji nag lu toll si juróom-ñett ministre yoo xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma ne def nañu ay njublang def nañu ay détournement ci li nga xam ne mooy alalu askan wi jamono ji nag ñoo ngi leen di mbi fi foro fenn fu nekk nag di leen di mbambu ñoom ñu ne pata la gouvernement bu Sénégal tooxi doona yi nga xam ne moom lañ leen di tuumal loole nag gouvernement bi wóoluñu ca noppee yéen kaay gi réew mi ko di autosaisir yéen kaay gi de la Tribune nee na rapport Cour ni génn na ci xaalis bi ñu jagleeloon Covid bi intérêt Macky Sall mooy mu bàyyi ñu daal di topp ñi nga xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma ndax nag scandale bi ci boppam moo rëy jamono ji maanaam débat ma ngi mel ni tulleeg màlle ñoo ngi ŋawtu ŋawte nga xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma ndax ci marché yi marché boo dugg yaa ngi fay dégg ñuy waxtaane rapport Cour des comptes yi ak nag ñàkk yërmaande gi nga xam ne ñenn ci ministres yi def nañu ko waaye nag ci biir transport bi dem bég dikk bi tamit askan wi ñoo ngi fay waxtaane lu jëm ci rapport Cour des comptes yi waaye tamit demal ne ñaawteef la turbina ñu xëy fekk fa Alioune moom nag jamono ji li muy sàkko mooy mboole ministre yi nga xam ne tudd nañ leen si ñu tekk seen ndombal tànk ni mu gën a gaawee journal bi di Source ñu xëy fekk fa maître Ousmane Seye di avocat bokk ci Benno Bokk Yaakaar nee nag jamono ji ginnaaw rapport bi génn na maanaam rôle ministre de la justice la mu daal ubbi li nga xam ne mooy ab information judiciaire maître Ousmane Seye mooy wax yéen kaay gi di Rewmi Quotidien bàyyi forcé woon na doon jéem a bëgg ñetteelu mandat far ñu daal di koy gagné ndax loolee du xew ci atum 2024 ak Macky Sall journal bi di réew mi quotidien moo xëy di sampab laaca waaye nag li nga xam ne moo am ba des Sall Bokk Yaakaar ñoom nag ñoo ngi fowee safara ndax jamono ji ku ci wax la ngay wax mooy Macky Sall war naa sampaan ndëndam yéene kaay gi de la Réveil quotidien nee na kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xabaar yi ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax sortie bi nga xam ne procureur def na ko ci révocation Pape la ak ci kaw Pape Alé bu ñu diwaanu Kaolack ndax ne na foofee douane teg na fa loxo drogue boo xam ne toll na ci vingt cinq kilos bi ñu ko xaymaa ëpp na ñaari milliards ci sunu koppara yéen kaay gi di sunu lamb nee na face à face Gris Bordeaux ak Ama Baldé tey jii la waaye nag Ama Baldé ka ñi mu àndala ñoom nag dànkaafu woon nañ Gris ak i sam ak i mbokkam ndax Ama Baldé ne woon na ko Gris combat bi du yomb si yow. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de